asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu di ñaan borom bi tabaraka wa taala defal ñu tawfiq te defal leen ko borom bi tabaraka wa taala dafa wax ci alqur'an ni wastaciinu bilsabri walsalaa wa innaha la kabiratun illa ala alxaashiciin na ngeen di dimbalikoo muñ ak julli waaye julli googi kët lu rëy rëy la ngir nit ki taxawe ko day rëy lool ci moom diis lool ci moom lu dul ñi nga xamante ne dañoo ragal borom bi tabaraka wa kon ku ragal yàlla mooy ki nga xamante ne julli day wayaf ci moom waaye bu fekkente ne nit ki loolii di xushuur mooy torox toroxlul yàlla ragal ko xemmeem li nga xam ne mooy ak payam ragal lool am mbugalam ku dul kooku rekk julli day diis ci moom kon mbokki jullit yi na ku ne xool boppam ndax bu fekkente ne noddukat bi noddu na ngir nga jug dem julli ji dafay diis ci yowam ndeet waxtu fajar nga ne ca suufu mbàjj ma muy nugg nga xam ne ndox mu sedd nga lay xaar ngelaw lu sedd ma nga lay xaar sa diggante kër ak jàkka ja noddukat ba ni assalaatu xayru min an nawm julli day moo gën ay nelaw ndax foofa julli dana diis ci yow ngir nga batt nuusal continuer say nelaw wan gannaaw wooteeb sunu boroom tabaraka wa am danga naan bërit jóg xam ne noonee nga nekke ca suufu mbàjj ma mbàjj ma féete kaw bis dana ñëw nga sàngoo suuf suuf féete la kaw féete boor yépp yàlla war laa laaj ginnaaw ba mu yónnee ñaari malaaka noo defoon ak moom te ndigal lii di julli ca moom la bàyyeekoo woon kon bu boobaa noo defoon ak moom xushuuc bu nit ki bàyyee xol loolu dana amuk ragal yàlla digganteem ak boroomam akuk toroxlu akuk sawar ngir jóg def jaamu yàlla googu mu nekk lu ci moom wastainu bi sabri wassalaa mbokki jullit yi ndax kenn ci ñun dana bànneexu ci jóg gi muy jóg dem ngir jooxe jullik sunu boroom gi comme na ko yàlla santaane ak fam ko santaane ndax nit ki bu koy def dana yëg ci xolam bànneex bu rëy ngir xam ne mi ngi ci li yàlla gërëm mi ngi ci jooxe ndigalal borom bi tabaraka wa muy julli googu nga xam ne mooy ñaareelu ponk lislaam mbokki jullit yi ndax kenn ku ne ci ñun buy tëdd guddi wala mu ne ci bëccëg ma ngay bàyyi xel waxtu wa di sabablu may ma ngay régler portable am wala muy régler montre am ngir waxtu julli bañ ko raw ca njaal been ga waaye ngir mu def ko ca mbooloo ma ci ñi nga ay góor lañ ndax ñi ngi góorgóorlu di bàyyee xel noonu waxtu julli yi même bu ñu nekkee sunu palaas moo xam fa ñuy liggéey la moo xam fa ñuy jaaye la ña ngay bàyyee xel waxtu wa ngir bu jotee lu ñuy def ñu bàyyi ko dem jox yàlla li mu farataal ci ñun dellu siwaat ci sunub liggéey loolu ndax ñu ngi koy bàyyi xel te du ànd ak genn diisaay ci ñun mu nekk bànneex bu ñuy bànneexoo ngir jaamu gi ñuy jaamu yàlla ci loolu ndax kenn ku ne ci ñun mi ngi bàyyi xel loolu mbokki jullit yi ndax kenn ku ne ci ñun mi ngi yëg ak réccu yëg xat-xatu xol bu fekkente ne waxtu julli faat na ko doonte la tax mu faat ko ngant lalu lu sharia nangu mu yëg ne daal moom wax dëgg yàlla am na lu rëy loo xamante ne romb na ko muy rëccu comme ni nga xamante ne benn waay boo xam ne commerçant la mu am aw kaañ wu woo xamante ne moo ko raw mu yëg ne moom kët bu gañe woon mënoon naa gañe kaañ woowu waaye kaañ woowu raw na ko ndax la muy yëg ci rëccute tol na ni yëg gi muy yëg rëccute waxtu julli raw na ko ca waxtu wa doonte du ci coobareem fama baalu ko bu fekkente ne nit ki nag loola da ko rom bu fekk ci coobareem la kon mbokki jullit yi kenn ku ne bu tontoo yi dana xam ndax moom bokk na ci ñi ragal yàlla di toroxlu ngir moom ngir lii nga xamante ne moo di julli wayaf gi muy wayaf ci moom wala diis gi muy diis ci moom ku ne mën nga cee peese sa bopp ci boo tontoo laaj yooyu yal nañu yàlla boole ci ñi nga xamante ne dañuy bokk ci ñi nga xamante ne julli da di yomb da leen di wàcceel seenub coono bànneex lay doon ci ñoom comme ni ko yonant bi daan waxee naan ko arix na biha ya bilal yow bilal noppal ñuwaay ci julli gi bi maana bu fekkente ne bilal noddu na julli googu mu jóg dem di ko julli ji day wàccee ab coonoom waaye naka noonu su fekkente ne nit ki sonn na te du waxtu julli jóg ngir naafilaal yàlla coobarewu dafa bokk ci li nga xamante ne ci lay wàccee ab coonoom nga xam ne kon julli bànneex lay doon ci moom waaye mu nekk ak jaamu yàlla gu koy jegeele boromam yàlla ñu ko boroom bi tabaraka wa taala boole defal wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu